julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu rek ci seen émission kalimatul xaq fa séene waxtaan ci yonent yàlla Muusa fa séene waxtaan ci histoire fa séene waxtaan itam ci mission bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci ku màgg ki di yonent yàlla Muusa fokk ñu deltuwaat gannaaw tuuti dugg ci istuwaaru yonent yàlla yuusuf ndax kenn mënta tudd yonent yàlla Muusa te tuddloo yonent yàlla yuusuf kenn mënta tudd yonent yàlla yuusuf itam te tuddloo yonent yàlla yaqub tudd yonent yàlla isxaq tudd itam yonent yàlla ibrahim gis nañu ni suñu maam ibrahim am na daraja ju rëy ci kaw yonent yi lu tax mu am ko ndax yonent yi moom moo di seen baay moom la ñuy wax abul anbiya waaye lu tax ñu wax yonent yàlla ibrahim abul anbiya maanaam li tax ñu tuddee ko bàyyi yonent yi gis nañu ne ci wàllu histoire suñu seetloo daneen gis ne maam Ibrahima ñaari soxna la amoon waaye aawam bi nga xamante ni moo doon saarata sëy nanu lu yàgg te yàlla joxu leen takk ndeer yàlla dogal comme maam Ibrahima nekkul woon yonent bu toog ci benn barab ndax daan na E jóg di toxu di dox dëkk ak dëkk ngir yaatal mission bi ko yàlla jox ba mu jaaree Égypte la yàlla dogal ci mbaaxam ñu may ko fa benn jaam bu rafet bu ñuy wax Haajara ñu may ko jabaram jooju ñuy wax Saarata Saarata nag gis ne comme moom yàgg naag maam Ibrahim te amuñu doom te itam nit ku màgg la mu yéene ko takk tax mu jël haajara jox ko addiya suñu maam ibrahima ne ko sama jaam la waaye jox naa la ko addiya nga sëy ak moom ndax yàlla jox leen takkandeer yàlla dogal maam ibrahima jël haajara moomu ba mu ko jëlee itam yàlla dogal ñu am doom mu tuddee ko ismaayil mu jël leen yóbbu leen màkk ñoom ñoo sañc màkk ba ñu ko sancee kon Ibrahima moo sanc Màkka bàyyi fa soxnaam su suñuy wax Hajara ak doomam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yàlla dogal itam arab yi ñëw dëkk ak ñoom bi maam Ismaïla màgge jël ci arab yi takk leen mu di màkk googu nga xamante ni képp kuy jullit sa xel ak sa xol yépp nga fa màkk googu maam Ibrahima moo ko sañc ak suñu maam hajara ak suñu maam ismail e màkk googu nag ki gën ci nit ñi fa la juddoo mu di yonent bi sallallahu alayhi wa kon yonent bi sët la ci maam ismail waaye itam sët la ci maam ibrahima suñu delloo ca ardu kanaan gi nga xamante ni moo di cosaanu suñu maam ibrahim aawam fa la nekk mu di saarata saarata moomu nag ba mu demee ba eh, nekk mag nga xamante ni war na àgg ci juróom fukki at ci âge boobu la ko yàlla mayee doom ju ñuy wax isxaq mu nekk âge boo xamante ni kenn xalaatu ci nit di ci am doom waaye comme yàlla moom moo di faalun lima rit lu ko neex mu def ndax tënkuwul ci logique yàlla may ko doom mu di isxaq isxaqa moomu nag moom moo jur yaqub yaquba jur yuusuf yuusuf nag ba yàlla dogalee mu jóge ci loxo baayam dem Égypte am fa teraanga te teraanga ga ay mbokkam xaj ci daf leen woo ñoom ñépp dëkk ak ñoom ca Égypte kon lan moo yóbbu eh, banu Israël mu di juif yi lan moo leen yóbbu Égypte yuusufa alayhi salaam moo leen yóbbu Égypte waaye ñoom seen cosaan foofu la woon ci ardu kanaan ci Palestine kon gis nañu ne e, bi ñu nekkee foofu ci Égypte nekk fa ay doxandeem yu am taraanga yàlla dogal nag ba nga xamante ni ci yàlla yuusufa dem na ba digam jot mu war a génn àdduna ci la dajale nag frèram yi ak mbokki jegeñaaleem yi waxtaan ak ñoom waxtaan wa am solo wa ruwiya anna yuusuf alayhi salaam lamma xadaratuhu alwafaatu jamaca ilayhi qawmahu min bani israila wahum thamaanuuna rajulan wa aclamahum bi xuduuri ajalihi wa nuzuli amri llahi taala bi yusufa dajale leen ne leen daal sama dig jege na léegi ma génn àdduna bi mu leen di dajale nag fekk na boobu àgg nañu ci juróom ñetti fukki góor ñoom juif yi Yuusufa waxtaan ak ñoom ne leen sama dig jege na li ma bëgg nag moo di waxtaan ak yéen dénk leen balaa ma génn àdduna li ma leen di wax nag moo di diini ji nga xamante ni mu nga doore ca samay maam ba tey jii mu mujj ci samay loxo maa ngi koy jël nag jox leen ko bëgg naa nag ngeen farlu ci ba puso bi bañ mujje ci yéen ndax mujje puso mu réer gàcce la maa ngi leen di yëgal nag ne fekk yéen a ngi jàpp ci diine ji di ko sellal du ngeen am benn problème waaye lu taraanga bari bari fii ba tax ngeen fàtte yéen bi nga xamante ni yàlla joxoon na ko seeni maam ñu koy donnoonte ba léegi te moo di diine ju sell su ngeen ko waccee ngir dëgmal àdduna bu boobaa fitna dana leen dal yusfa na leen maa ngi leen di yëgal ne ëllëg dana am buur bu saay-saay boo xamante ni dana juddoo fii ci dëkk bi buur bu bon xol te bon te añaan te ñàkk yërmande su fi juddoo dana leen sonal coono bu metti fekk boobu yusufa am na benn séq mu di benn ganaar goo xamante ni ganaar gi am na juróomi téeméeri at mu ni leen feeg sëq gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nekk feeg mu ngi sab jàpp leen ne a ngi ci xéewal yàlla tàllal na leen loxoom merewu leen waaye bis bu ngeen déggee sëq gi sabatul rekk xamleen leen ne buur bu saay-saay boobu judd na su juddoo nag dana rendi seen doom yu góor yi waaye itam dana bàyyi seen doom yu jigéen yi ñu dund du leen rey dana leen teg mbugal mu metti mu ne nag buur bu gudd fan lay nekk gu yaatu nguur ndax nguuram mën na diire lu tollook ñeenti siècle lu tollook ñeenti téeméeri at mën na ko dund mu ne waaye nag dana am benn waay buy juddoo ci giiru banu israil dana am benn waay bu ciy juddoo bu ñuy wax muusa bnu imran kooku nag mooy folli nguuram moo koy rey mu nekkoon e, bis bu dat boobu ñëwee ba nga xamante ni yonent yàlla mu e, muusa rey na ko ba war leen a génnee pour ngeen génn dëkk bi su boobaa sama bàmmeel na ngeen ma toxal yóbbaale ma bu leen ma bàyyi fii ci Égypte fu ngeen jëm rekk yóbbu leen ma foofu ngeen suur ma fa ma mën a dëkkaale ak yéen ba faw et bi nga xamante ni banu Israël dem leen di seetlu seex gi muy sab ñu toog jamono gisatuñu mu sab ñoom ñépp ñu daal di jaaxle bi ñu jaaxle itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul seex gi itam sab ndeke boobu buur ba judd na buur boobu nag moom moo di firawna mi nga xamante ni moo di firawna kàccoor bu bon bi nga xamante ni alquran rëbb na ko fu ne mu mel ni loolu taxoon na ndénkaale yusufa loolu taxoon na nit ñi ku am doom rekk tuddee ko imran ku am doom tudde ko imraan lu tax ngir bëgg rekk imraan moomu jural la muusa mi war a rey firawna imraan ku ñu tuddee imraan itam soo amee doom yaa ngi koy tuddee muusa ngir bëgg itam muusa moomu di rey firawna di nekk nit ku baax nit ku yàlla gërëm e nekk itam sa doom jooju moo tax ku ñu tuddee imraan rekk sa doom tuddee nga ko muusa waaye yàlla dogal bi nga xamante ni firawna juddu na nekk fitna bu rëy ci banu israil musiba bu nekk rekk teg na leen ko e bi nga xamante ni nag yusufa yàlla dogal na moom itam mu génn àdduna am na ku mu wuutal ne ko yaay nekk sama xalifa ka mu wuutaloon nag moo di yahuza mooy ka ëppoon yërmande ci doomu baayam yi ci moom moo tax alquran moo ñu nettali istuwaaru yonent yàlla Muusa yàlla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitaabi Muusa innahu kaana muxlisan wa kaana rasulan nabiya mu ne ko nanga fàttaliku ci téere alquran bi ma la jox sa nawle yonent boobu ñuy wax Muusa mu ne ku baaxoon la te sell nee na te yonent la woon man yàlla maa ko yónni woon waaye mbokk yi bu ñu xoolee yonent yàlla Muusaa yonent bu am garaat la yonent bu yàlla bëggoon la ndax yonent yi bari nañu lool waaye nag am nañu ci yàlla tànn na ñii ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nag ci la yonent yàlla Muusa bokk loolu soo demee ci aaya boobu ñuy wax sharaa lakum min addiini ma wassa bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayk wa wassaynaa bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu ddiina wala tatafarraqu fihi soo demee da nga fa gis yonent yooyu nga xamante ni yàlla cité na leen ne ñii ñooy yonent yi nga xamante ni ñu gën ci yonent yi te Muusa ci la bokk ñooñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mu di yonent yàlla nuux ak yonent yàlla ibrahim ak yonent yàlla isa ak yonent yàlla muusa ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróomi yonent yi ñoo di ulul azm min ar-rusul yonent yëpp ñoo ci gën kon gis nañ ne yuusufa li muy am am daraja ndeke muusa moo ko ëpp daraja Moussa moomu nag moom la yàlla di fàttali histoire ci biir alquran pour jullit ñi jëriñoo ko moom la alquran wax ni toot siin miim tilka ayatul kitaabil mubin natlu alayka min naba'i muusa wa firawna bilxaq li qawmin yuminuun mu mel ni kon bu ñu tuddee Muusa danañu wax kan moo ko jur ñu ne Moussa Imran moo ko jur kon la Yusufa waxoon dàquwul ndax waxoon na ni Moussa moomu Imran moo koy jur Imran Yasahar moo ko jur Yasahar Qaahis jur ko Qaahis Laawi jur ko Laawi Yaquba jur ko kon Laawi bi nga xamante ni moo di maam ci yonent yàlla Moussa frère la woon ci Yusufa Laawi doomu baay la woon ci Yusufa bokkoon na ci fukki doomu baay yi nga xamante ni ñoo fexeeloon yuusufa ba dugal ko ca teen ba ndeke laawi mi dana am sët bu am solo ci diine ji laawi yaquba moo ko jur yaquba ibrahima jur ko kon ba tey ibrahima buñ nee moom mooy abul anbiya dafay nekk wax boo xamante ni kenn mënu cee dindi aw xaraf kon yonent yàlla muusa yuusufa maamam la yaquba maamam la isxaaqa maamam la ibrahima itam maamam la ñu ne firawna yi bari nanu lool firawna yi bari nanu ndax ku mës falu égypte bi buur firawna leen lay wooye mu ne waaye firawna bi nga xamante ni moo dajeek yonent yàlla muusa kaana aata ala allahi wa acdama qawlan wa aqsa qalban walam yakun fihim firawnu atwala umran fi mulkihi wala aswa'a malikan li bani israila minhu wa kaana yucazibuhum wa yastacbiduhum fa jacalahum xadaman wa xawalan ñu yi bari nañ waaye firawna bi daje woon ak yonent yàlla Muusa nee na benn firawna gënu ko ci jalgati aqu yàlla ndax dem na ba fëgg dënam wax ne ma yàlla bi gën a kawe mu gënoon a bon xol itam te itam amul benn firawna ci yi ko ci yi ko jiitu firawna boo xamante ni moo ko gën a gudd fan ci nguur ne na itam moo gënoon a bon ci buur yi fi jàlloon yépp ci banu israil ndax moom bi mu ñëwee gis waa banu israil nekk ay doxandéem tekk ci dëkk bi kuy yëngal dara te boolewu leen ci daanaka loola du am fayda kenn du ko faydaal moom ba mu ñëwee dafa mel ni rek daf leen a añaane teraanga googu leen yàlla defal ne ay doxandéem yoo xamante ni dëkkuñu ci dëkk bi ñëw bëgg a yilif dëkk bi téye leen nag liggéey yu metti yu nekk teg na ko ci seen loxo di leen gasloo ay kanaal di leen tabaxloo di leen gasloo ay teen ba dee sax gënal leen dund xeetu liggéey yu bon yu métti yoo xamante ni firawna tegoon na ko waa banu israil mu mel ni kon moom firawna moomu jékki na jékki rekk am gént gu ko dikkal ci nelawam mu yeewu daldi tiit bi mu tiitee lii la wax daf ne inni raaytu fi manaami ka anna naaran qad aqbalat min bayt almaqdis xatta ishtamalat ala buyuti misra fa axraqatha wa axraqat alqibt wa tarakat bani israil dafa xëy rek daal di woo jibarkat yi woo gisaanekat yi dajale leen ñoom ñépp ak képp ku mu yaakaar ci yow xam ak firi gént ne leen daal man bii gént naa ci sama biiri nelaw mu mel ni dama gis safara safara soo xamante ni mu ngi jóge Jérusalem nee na di ñëw nee na bu dugg ci Égypte nee na bi mu ñëwee bàyyiwul fenn lépp la lakk nee na itam képp koo xamante ni xibta yi nga maanaam képp koo xamante ni copte nga nee na safara wa lakk na la bàyyiwu la waaye gis naa ne daal ñi bokk ci banu israil ñoom safara wa laalu leen mu ne kon nag yéen mbooloo mi mag leen di laaj lan moo di seen xam-xam ci gént gi loolu bi ko firikat yi xoolee gis nañ ne xamuñ ci dara lu dul jibarkat ya jibarkat yi ñoom ñoo ko firil gént gi ñoo ne ko innahu sa du min bani israila gulaam yaslibuka almulk wa yaglibuka ala sultaanik wa yuxrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu diinak wa qad adalla zamaanuhu alladi yuladu fii ñu ne ko dana am benn xale bu ndaw boo xamante ni dana judd ci banu israil mu ne ko xale boobu nag ci at mii lay judd mu ne itam bu juddoo mooy folli sa nguur moo lay not te itam moo la fi génne fi ci dëkk bi génne fi saw nit te itam dana fi jële sa diine ji nga yor indi fi jeneen diine jamono bi mu war a judd nag ñëw na Firawna nag daldi woo Égypte gépp ba ñépp daje mu ne leen mbir am na moo di ni maa ngi leen di yëgal ne at mii jamono ji ku fi juddu di góor nanu la rey ku fi juddu di jigéen nag nanu la bàyyi léegi nag lu juddu di góor rekk ñu rey la li ñu reyoon ci nit ci liir ëpp na ay junni junni junni di dem lu tax ngir na ragal bi nga xamante ni ragal na ko ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw boo xamante ni moo war a ñëw pour folli ko tax na bés bu nekk mu ngi tëral ay bakkan di ko rey pour défendre nguuram mu mel ni rey googu demul na ba jéggi dayoo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci firawna waxtaan ak moom ni ko yaa ngi rey liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di rey waaye ñu ngi lay yëgal ne màgget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy rey liir yi ni liir yi di dee noonu la màgget yi di dee te màgget yi yàlla leen di rey waaye nag liir yi moom firaaw naay rey màgget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeunes ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaaxle ñëw ci firaaw na ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changer doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga rey mu nekkoon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma reyee at ma ca topp damay jëlal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kàttan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn mënul nekk at mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi at moomu ci la yonent yàlla Muusa judd te su fekkonte ne yàlla mënul boppam kon day bàyyi ba nga xamante at ma Firawna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonent yàlla Muusaa juddu ci waaye defu ko dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonent yàlla Muusaa war a judd te Firawna di ci rey yonent yàlla Muusaa juddu ci yaay ji nag jaaxle fekk yonent yàlla Muusaa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haarun Haaruna nag moom mu ngi juddu ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey waaw waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Muusa judd moo tax yonent yàlla Muusa bi mu juddoo yaayam jaaxle jaaxle na lool lu tax mu jaaxle ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Muusa di gis te itam yor na doom te doom ji bëggul mu dee waaye nga gis ne bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp bu ca jàpp rek mu ñaaw waaye bu ca jàppee lu mu metti metti itam ci jàmm rekk lay mujj yonent yàlla Muusa yaay jànku mu nekk liir ndekki na itam yebal na ay rajukat ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xool jigéen ñi ëmb yàlla dogal itam ndeke bi ñuy visité dugg leen ci kër yaayu yonent yàlla Muusa bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw fekk mu ngi téewoon yonent yàlla Muusa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñuy yëngatuy ñëw mu jaaxle ba jël yonent yàlla Muusa dugal ko ca biir fuur ba bi ñu ñëwee itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye bi ñu ñëwee ba visité ko ndeke yebal nañ itam ay médecins yu foor sax yoo xamante ni kenn mënu leen a nax ñu fort ci médecine bi ñu ñëwee itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax e, jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk na itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànqam mu mel ni sax mosul am jëkkër delloowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nañu ne daal wax dëgg yàlla et ci logique kii amul doom ñu daal dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellusi na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Muusaa ngi sex baaraamam di ko nàmp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rekk lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safaraw yi la yàllaa ko abal lakke bu ko neexee rocci ko jëmm ja rekk nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee maam Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko maam Ibrahim eh, yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko danga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi kook man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu mu mucc loolu la alquran wax ni wa aw awxaynaa ila ummi muusa an ardiihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Muusa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ne soo ko téye mën nañu ñëw jël ko rey ko sànni ko ci biir géej gi te bul ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloosiwaat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni yi may doxali samay mission loolu rëy ba la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yonent yàlla Muusa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menuisier bu ñuy wax Xasqiil mu nekk menuisier bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berceau benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax nañ ne xasqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaana gis jigéen ju am doom nga signalé nga siñaale ko dana am lu ñu lay jox tu ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom xasqil dem ca kër na pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rekk yàlla rocci ak wax ci moom dugal ci moom ak lu ak ak muuma mënatul wax ñu ni ko waaw yow looy déranger nit ñi woo nit ñi ba ñu ñëw te waxoo leen dara jàpp ko caw ko bu muy bëgg a dee duma ko bu muy bëgg dee bàyyiwaat ko mu dem ba ca yoon wa yàlla delloowaat ko waxam mu taxaw di jabbutu naan gis naa ci kër gële jigéen joo xamante ni am na doom di ko répété di ko répété pour dellu siwaat pour saxal